jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak foo ci def dara séminariste yi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf séminariste yi xale yu góor yu jigéen yi jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne ci politique bi ngeen nekk waaye jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne ci daayira yi ngeen nekk li fekk mënuñoo bokk mel ni penc penc mi dese na lu bari li feeg mënuñoo bokk menn penc penc mi dese na lu bari seen naa fi sànq imaam Kanté muy dugg si waaw ànd naag ñett ba ñeenti nit ñu jóge ca jumaa ja <laughs> imaam ñu ngi lay jox cër waaw ñëw na ci séminaire bi eh, ndax fi nu tolloon démb dafa am solo lool te imaam nee na amal na ko solo waaw ñu ngi ñu koy déey bind na ko ci kayit ba jox ko sëñ Mbàkke Sylla muy personnalité ak ak aqida personnalité ak aqida bu personnalité muuree aqida rek feebar la ci ndaw ñi ma ne kere bi xare bi méttee ba métti njool màkka jàmbaar ja suq mi ci bàllagu barke ji mi ci ñaani dugg ci xare ba récupérer fa ñaari yëf benn mooy information bi bi véhiculé ci biir nit ñi naan yonent bi rey nañ ko information boobu yonent bi récupéré ko ah waaw waaw ana nabiyun la kadib ana ibnu abdul muttalib ba ñëpp xam ne kookuy wax muhammad la kenn rëyu ko information ba yàqu bu ñaar bi mu dugg ci xare bi waaw mook mantoom ma xajj fii xajj fii xare bi leer waaw waaye nag bi muy late récupéré sunu borom ne jibril kaay nga dem nga ne leen nga wax sahaaba yi nga xam ne danoo dégg ne jàmbaar ji tëdd na rek ñu bëgg a tëdd nga ne leen wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa immaata aw qutilan qalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadur allah shay'a wa sa yajzi llahu shakirin lii la wax keroog daf leen wax ne Muhammad ab yonent la ay yonent jiitu nañ ko waaw ay yonent jiitu nañ ko waaw <laughs> waaw waaw ay yonent jiitu nañ ko waaw bind bu am solo ba ñu sëñ bay si euh, sëñ Babacar si joxoon waaw alxalifa li taifa ak ci janie bind ba mu nu joxoon ba ñu ne ko xalifa nga naa ah, léegi day yëg leen lenn xalifa tekkiwul lu dul yàlla ci bunt bi te li muy tekki mooy daa am ko fi toogoon ma ñëw toog fi mu toog bisa ngi ñëw ma jóge fi ma toog am ko fi toog ñun ñëpp nu xam ca jàkk ji ca zawiya ba waaw buñ ko xoolee rek da di sëgg nun ñëpp nu xam waaw ndax fam daan toog am na ko fam toogoon am na ko fa toogoon te nee na jamono ngi ñëw duñu fa du fa toog dañ daan gàmm ji buñ ñëwee buñ ñëwee fekk alxalifa toog sëñ Mansour ba gàmmu ñëw séenu nu ko ñu seen Eh, aj Abdul Aziz Al Amin ba gàmmu ñëw ñu toog seenu nu ko ndeysaan seenu nu ko ba Malick daal di toog nun rek la de ngay màggali Tuuba waaw ñëw seen seen Abdul Ahad wala toog wala ca sëñ waaw bu dee suñu classe gii nga ñëw ba mu yàgg fekkutoo ko fa nga fay fekk Sëriñ Saaliw ginnaaw bi suñu Abdul Xaadir jóge ngay ñëw ba mu yàgg nga ñëw fekk fa Sëriñ Baara toog ba mu yàgg Sëriñ Cheikh toog Sëriñ Siidu Muxtaar waaw lakal fadlu yaa Muxtaaru yaa Sayyidal Wara ba mu yàgg nga ñëw fekk fa jamono ji al toog a cheikh mouhamadul muntaqa toog ndeysaan kenn mësu ko gis waaw waaw loolu gone yi xam leen ni ci wàllu diine ji la bu dee ci wàllu parti daa ngeen fi dégg benn parti am ko ca nekkoon ku ñu wax Ahmed Dansokho jàmbaar jooju waaw anam daa ngeen dégg benn parti ñu doon wax ñu doon tudd Djibo Leyti Ka ak benn parti bu tuddoon PS ñu ci doon wax Senghor hmm? wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul ma tax kon shaxsiya muy personnalité bu ko tawxiid ëpp doole loolu ab ab ab doodaan la tawxiid moo ëpp doole lépp waaw ku dut yàlla xëya nga fi bis àdduna continuer di dem boo ko waxee daal ñu ne yàlla na àpp sore wala yàlla na yeex <laughs> kenn mësu koo gis rek yonent sunu borom mu ne afa immaata bu fekkee dafa faatu walla ñu rey ko da ngeen di dellu ci la ngeen nekkoon da ngeen dellu ci la ngeen nekkoon <laughs> waaw afa immaata aw xuti lan xalabtum da ngeen dellu ci la ngeen nekkoon dafa am suñu mel ne mbokkum daar ñu wax Mor Mor Yacine Mor la tudd ñu ko wax Mor Yacine <laughs> waaw yal na ko yàlla yokk wér Mor Yacine Guèye ñii dem kokki danañ koy xam ci nekk Louga yooyu ak Jidda Mor ñu dalal buñ demaan Jidda maak maak euh, ndeysaan ala jaga njaay bu njare Touba Njaay Mor Yacine <laughs> gaa yi ñu def benn concours fii pour am ay étudiants ñu ñëw laaj koy laaj laaj yëj jafewut waaye dangay wax waaw walla nga wax déet léegi laaj yoo xam ne da ngay wax naam nga wax laa bu laa yi ëppee te jub wala naam yi ëpp te jub bu baax mu def ko nag dégg naa benn côté ba ëpp gars yi ne ko nag lekkoon yow doo dem ngay bokk ñu ñuy ñu ñuy kale <laughs> mu ne mu ne leen jërë ngeen jëf làkk leen ci arab jërë ngeen jëf kale ngeen nu kale ngeen nu encore ñaari kale ngeen nu kale benn kale bi mooy teenoo jàngi benn kale bi mooy teenoo nekk jullit pur naare di ko xool mu ne waaw bu fekkee dañoo nekk ci pénc bi bëgg fee nekk lu nu neex loola néexunu nu bëgg ko bàyyi ñëw ci lii ngeen nuy woo ngeen bëgg noo kale kale leen ñu ñu dem daa di daal di jël bagage ñu ne ko kaay kaay kaay kaay kaay waaye gis nga discours boobu jar naa yaatal lool discours bu jar yaatal la waaw tubarkal nu ma baal nag waaye wax na dëgg waaw Mor Yacine Gueye la tudd mi ngi ci dëkk bi xam naa ko dem sax mu ngi may dégg <laughs> waaw waaw kon gis nga in xalabtum ala aqaabikum jooju daam solo mooy dellu ci la nga nekkoon ndax bu yonent bi faatoo wala ñu rey ko da ngeen di dellu ca la ngeen nekkoon gis nga dellu ci li ngeen nekkoon ëpp naa def professeur nekk ci dara ba mu yàgg nga jóge ci ñëw ci lu baax ba mu yàgg nga jóge ci lu baax la dellu ci la nga nekkoon ëpp naa def moo tax bu këpp jullit defee lislaam ne nan ko rey bu jullit defee lislaam mu ne nan ko rey waaw bu fi jaasi lislaam nekkoon ak ilimaan sharia nekk fi rek daal ne ay ca kooku nan ko rey ndax dellu ci la nga nekkoon bu baaxul mukk afa in maata aw qutilan xalabtum ala aqaabikum waaw gone gu jigéen ndeysaan guy muur ba topp ko waaw ba mel ni soxna Zeynab Fall waaye benn bis rek nga séen ko mu melaat ni nogay waaw <laughs> mbokk mi ne ne fan yi dégg ma nogay ma ko waaw nogay c'est normal <laughs> c'est normal mu ni ma pourquoi ma ne ko ci séminaire lañ nekk te xam nga ne ndogo yi séminaire bi wóofu ko munta togg ndogo yi munta fóot munta paase rafetut waaw jàngut mu ne ma ne ko su ma continué ci séminaire bi <laughs> day am contradiction mu saa <laughs> xool ba mu yàgg rek tabarka <laughs> mu wax ma ab baat waaye wax na dëgg noo kay na toog rek ba séminaire bi noppi waaw <laughs> kenn mësu ko gis rek mbokk yi na ko aqida fii te kaw <clears throat> na yàlla nekk chefu ñëpp te kenn du ko chefu faalun li ma loolu la yonent wax kon loolu la suñu borom wax yonent bi wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul waaw jiite parti ba mu yàgg nga jóge ci parti bi du te parti bi dox na parti bi dox waaw mu ngoog léegi nag génn jiite parti bu mu yàgg ak génn àdduna ak jiite parti bu mu yàgg ñu ñu def congrès folli la na yam képp ci yow waaye buñ la folli mukk ngay dem yi benn parti boo xam ne bi R parti S parti Y parti deux parti nangam bul ko def waaw dafa am jënn jigéen ju bokk ci politique bi nii waaw bokk ci politique bi nii Euh, soxna mi Touré def naa nu la am tudd sax mooy suñu njiit fële ca conseil économique xam ngeen ni jëlee nañ ko ci ab barab teewul mu nekk di necc ba ba jël siwaat waaye pourquoi ku ñu génn nga gedd ber sa jàkkay bopp ber sa nangam ki nangam bu leen ko def defe daal Portugal maa ko war a féetewoo baa may génn àdduna du noonu waaaaw wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna n-naas waaw maa ngi seen nalee benn politicien waaw ah, boo ko ma nga yëngal bopp ba <laughs> na ñoo ngi lay nuyu waaw ah, ma nga ne la yëngal bopp xam naa <laughs> waaye wax naa dëgg de parti da toog rek yow la ñuy gis rek xadaafi fi gënoon na baax xadaafi ñu fi gënoon a baax ci politique la bokk wax na dëgg waaye gis nga ko waaw ah, gis nga ko bë bët yaa bët yaa ko xool lu ëpp rek mbokk yi mu ngi noonu waaw waaw mu ngi noonu de am na benn xaayida bu jàngalekat yi di wax xaayida bu am solo xaayida maanaam benn règle bu am solo ci pénc mi mooy lan xaayida bi daa wax ne wujubu maarifati al xalq bil xaq wa laysa maarifatu al xaq bil waaw maanaam xam xam mbindeef ci dëgg xam mbindeef ci dëgg moo war a am waaye xam dëgg ci mbindeef wërta am waaw diw wax na dëgg bokkut ak diw a ko wax kon dëgg la ci pénc mi loolu benn xaayida la benn règle la bu am solo boo xam ne ñoom docteur Ablaye Lam ñuy jàngale usul ca kuliyatu ifriqiya ñoo koy jàngale waaw bu ñoom docteur Ahmed Lo mbokk yi nañ doyloo loolu ci xalabat saxsiya ala al aqaidiya ñu bàyyi xel personnalité ah ak pas-pas ma ci beneen bi mbokk yi mooy juróom-benneel bi mooy xalabatul hawa ala al xaq <laughs> xalabatul hawa ala al xaq maanaam bànneex not dëgg bànneex not dëgg luy bànneex bànneex mooy li nga bëgg mbir mi mel ko luy dëgg dëgg mooy li mbir ni mbir mi mel waaw benn ma sër la bu am solo boo xam ne bii foog ñu tàggat ci ndaw ñi sidit googu ko def ñu roppi ko ndànk dindi ko alhawa ma ne kon su boobaa <coughs> mooy koo xam ne kii bu ñuy réunion bépp xalaat bu jógewul ci moom pour moom du dëgg bu association di dund bépp xalaat bu jógul ci moom du ko nangu loolu loolu benn feebar la xalabatul hawa ala alxaq gis nga alxaq képp ku di jullit boo ci association bokk ci daayira bokk ci tariqa foo mën a nekk alxaq mën naa ànd ak yow ku mën a doon moo tax fi ne buñ la fexee ba buñ la fexee ba canaliser la ne la bul déglu diw del déglu diw alxawaa ñëw na alxaq ngay bëgg a dàqu bul ànd ak diw del ànd ak diw alxawaa ma ngay ñëw alxaq ngay bëgg a dàqu bu fekkee jullit la waaw bu fekkee jullit la jullit lu tëdd ci kaw suuf tey xaq rek loolaa yëfam loolu la yëfam ku wax fu mu ko waxee nu mu ko waxee loolu du problème bi waaw xalabatul hawa alal jullitit du def diw dafa mere diw kon dama koy mere déedéet diw dafa mere diw kon dama koy mere loolu kenn du ko wax mën naa am diw mere diw te ci erreur la ko teg soo doxul lu dindi erreur booba ci erreur lay génn àdduna buñ koy duma ëllëg yaa ko seetaan te ko nekk ci danger kenn du ko seetaan allahu akbar moo tax boo demee ca gàmm ga mbaa ca màggal ga mbaa ca ziar ba foo mën a dem foo ci mën a dem mën nga faa fekk alxaq mën nga faa fekk alxaq alxaq mooy lan déglul alquran wa ma kaana li mumin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum alxiyara min amrihim allahu akbar bu yàlla tëralee yonent bi tëral jeex na de bu yàlla tëralee yonent bi tëral waa léegi yàlla tëral yonent bi tëral bu keneen di tëral da tëral li di tëral tëdd wiiroog tëral yi yàlla ci lu ci lu dul ay ay commentaire ci lu ay eh, waawaaye waaw waaye penc mi yàlla dafa tëral yonent bi tëral li yàlla tëral yonent bi tëral ko nag waa penc mi séddoo ko waa penc mi séddoo ko li yàlla tëral yonent bi waa ci ci misaal laa bëgg a wax waa penc mi séddoo ko sunu magum daara mu daan wax imaam Malik Njaay ca Cees mosoon naa nekk jama amiru jamaat Ibaadu Rahmaan waaw daf ñu daan jàngal bu ñëwoon Louga maak ñoom mbar gu siise yal na yal na yàlla yokk ko bu imaam Malik Njaay masaan na ñëw këram lay dal mu ne nu bi mu ñu firil ay ji mu ne association yi ak tarixa yi dañ leen a boole dix mille waaw dix mille yi mooy njàngalem yonent bi wala dix mille yi mooy alxuraan ñu ne ko waaw mu ne fii dañoo nekk ci séddoo ko ñu ne waaw mu ne au lieu ñu dem ci bitig ba wecc ko déedéet wala ñu jënde ko dara tiim bokk ko déedéet léegi dañ ko bëgg a dagg siisu ko fukki cër ku ci ne jël benn ku dem ci bitig ba boo jëndee doo am ma ne ko wax nga dëgg de wax nga dëgg de kon nag mbokk yi xalabatul hawa al xaq a feebar la na ci ndaw ñëpp faju séminaire si yëpp faju ci waaw wa ma kaana li muminin wala mumina isaa xada allahu wa rasulu amran an yakuna lahum alxiyara min amrihim gis nga bu la bànneex toppee ci li yonent bi tëral ba noppi lim tëral néexu la kon seetal sa bopp gis nga bi yonent bi santee jigéen ñi muuru ci alxuraan wax ko bu la muuraay di déranger wala doo ko def seetal sa bopp da ngaa feebar hmm? waaw da feebar yonent bi alayhi salaam ak yàlla rëdd aw rëdd nga ne rëdd wi néexuma waaw muuraay dama déranger seetal sa bopp waaw wala mu tere xeeti létt nga ne mënuma ko ñàkk léttu seetal sa bopp wala xeetu col gum aayu jigéen ñi nga ne mënuma koo bàyyi seetal sa bopp wa ma kaana li muminin wala mumina isa xada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara min amrihim waaw soxna Kumba Jóob caril azir ma wax la li tax aay ji wàcc bu ñuy fiir lañ ko tuddee sababu nusul waaw dafa am jigéen ju ñu doon wax Zeynab bintu Jahsh Zeynabu bintu Jahsh ku ñuy wax Zeyd ibn Thabit toll ci denc te bi muy ñëw kër yonent bi ab jàmbur la woon ñu yar ko ci kër gi ba tudd ko Zeyd ibn Muhammad ndax fam jaar danaa ci ma si ñëw jamono incha Zeydu moomu toll ci denc am na ci kër gi jànq bu amul jëkkër ñu ngi tudd Zeynabu bintu Jahsh ñu ne Zeydu doxandéem la bu doon tey ñu ne ab jaam la ñu ne Zeynab ci yax bu rëy la bokk ndax aljahsiya yonent bi daan daan ne Zeydu dama lay may Zeynab Zeynab jóg taxaw daal ne Zeydu man lu ko xanaa Zeydu men xam nga jigéen ñaari bu amee lu ko naqari du xool kii sëriñ la wala ustaas la day jóg rek wax ngeen baal ma yéen jigéen ñi seet <laughs> buñ tàngee jër daar wax dañ ko wax door a noppi wala teg cay jooy daara door may Zeydu mu ne Zeydu man lu ko xanaa ndaw ndaw sa jooy dem wuti mag ju góor ja waa ah, dangay ngay seetaan ñu may may jaam bi waaw Ablaye mu jax da seetaan ñu may mayu jaam mu ne jaam ban mu ne nee nañ dañ may may Zeydu man bëgguma ko coow la na ko ci pénc ma ah sunu borom indi laaya ne leen lii normal war te nii yonent bi lii la ñuy def am ku ne duñ ko def loolu kër waru koo def ma néew <laughs> ceey wàjjile waaw waaw yonent bi lii la ñuy def am ku ne kër waru koo def bu leen def nangam ñu ne ñu ñi ngi koy def bu leen wax nangam ñu ngi koy wax bàyyi leen nangam bàyyeegun ko rekk tabarkal ah ndaw sa nangu nangu nangu ngeen baal ma nangu ñàkk pexe ñu may ko ko mu sëy si te duñ bokk laal daanaka ndax lan waxi guddi waxi guddi nga xam ne jigéen joo gis mu man ko jëkkëram day jeex tàkk day yooy ngar ndeysaan kooku ba mu wax mu daaru ngeen baal ma yéen jëkkër yi mel noonu <laughs> seet waxe guddi baaxut mukk waaw ku aye jigéen ju aye bu jant bi soxee rek ci nga war a tàmbali bàyyi wax yooyu waaw <laughs> mère tàpp si bi mu ne ma oustaz soo jàngi lii <laughs> waaw eh, meer tàpp si bi mën ne ko ci alxuraan mu ne alxuraan kon bawut dara mën ne ko bawut dara moos waaw maa far naa fi kitaab min shay bu guddee rek bala bu ñu reeree rek ndew si tàmbali Zeynab tàmbali naa ne ko yow war ngaa sant yàlla nit ñi di yaay ci ëpp sens waaye man de bu ma alxuraan waxutoon ma fanaan ci sa ginnaaw du fanaan ci sa ginnaaw am nga sens de rek bu Seydou xëy bu ko di xoolee rek xam ne kii ne la bu xëyee bu ko xoolee rek xam ni kii nelawul ndeysaan mu koy wax kàddoom nga rek amsik alayka zawjaka wattaqillah téye ko rek ndeysaan ko rek ndeke bu ko bu ko waccee yàlla ne ko jël ko mbokk yi alhawa mooy kon bànneex réunion bi am na ko wax waxam jooju mën naa nekk proposition bi baax na mais comme jógewul ci yow nga ne on oh, on oh, loolu loolu ab feebar la mbokk yi bind bi jeexut bu leen neexee ci kanam surtout ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd seen jataay bii am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex di heures jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defem seen rajo ci biir réew ak bitim réew sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi nii taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof